di kàddu yu nuyoo ak kàddu yu ziyaara ak kàddu yu ñaan yu tedd di ko jotal sunu kilifa gu baax gi toog di a cheikh Mouhamadulil Muntaxa di la ñaanal bu baax Mbàkke Balla sunu boroom dool la yàggal lool te wéral la mboolem yéene ji nga am ci sama am ju baax ja cheikh Ahmadou Bamba nu yéene ji toll rek yàlla na ko kàttan gi raw te nga ànd mbooleem njaboot gi waaye di la jottali bu baax Mbakke nu njiitu réew mi di sa doom ci kër gi di taalibi ci kër gi waaye di soppe di son excellence monsieur le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ñëw fii tey nag ànd ak mboolem li mu am lépp la ko jiitu ba mu yabalee li mu am lépp mboolem membre du gouvernement bi mboolem administration bi ba ñu dëgg dëgmale màggal gi dañuy lépp lu état bi am wala ñu man ko nañu ko jël te jëmee ko Tuuba ànd ak sëriñ bi waaye mu ni loolu rek doyut dana ñëw tey jii ci sa wet wuy si wooteeb sëriñ bi ndax sëriñ bi sant gi yàlla dafa wax ni képp koo xam ni mbégam sa mbég la na nga ànd ak moom santale ko borom bi subhaanahu wa te ci loolu la fas yéenee tab bi moo tax bi mu ñëw ànd na ak soxnaam soxna Marie fay mi ngi nii toog ci wetam nuyu la léegi membre de gouvernement bi it mën na maa wax ni ñëpp ñëw nañu wala ñi ëpp ñëw nañu teewaaleel ñi nga xam ni ña nga toog ca liggéey ba ngir liggéeyal réew mi te loolu rek mooy sa yitte man nañu cee tudd général Jean Baptiste Tine ministre de l'intérieur mi ngi ci biir délégation bi ànd ak président de la république man nañu cee tudd monsieur le ministre di Diba ministre de finance et des budgets mi ngi ci biir délégation bi ànd ak président man nañu cee tudd monsieur El Malick Ndiaye ministre des transports moom itam mi ngi ci biir délégation bi ànd ak président man nañu cee tudd itam monsieur Cheikh Tidiane Dieye mi yore wàllu hydraulique ak assainissement moom itam jiitu si woon na fi ak mboolem membre de gouvernement bi waaye mi ngi ci biir délégation bi ànd ak président man nañu cee tudd monsieur Serigne Gueye Diop ministre de commerce moom itam mi ngi ci biir délégation bi ànd ak président man nañu cee tuddu madame Soxna May Mouna Dieye ministre de la famille moom itam teew na ànd ak président ci délégation bi man nañu cee tudd itam monsieur Moussa Balla na ministre de l'urbanisme moom itam teew na dëkk ci gox bi lépp loo xam ne président moo ci waroon a teew waxtu wu ne day ànd ak Serigne Cheikh ànd ak mboolem ñi fi nekk di ko fa teewal moom itam ñoo ngi rafetlu teewaayam ci délégation président waaye itam ànd ak monsieur le ministre wala monsieur Alioune Dione microfinance moom itam teew na bokk ci délégation président waaye itam monsieur Papa Mada chef de cabinet président moom itam teew na bokk ci délégation président waaye monsieur Cheikh Sakho Jambira communication présidence ñoom itam teew nañu teel a ñëw lool ànd ak président jiitu si ko fi monsieur Sidi Alpha Ndiaye DG adjoint présidence moom itam teew na ànd ak président fii tey soxna Aïda mbooj mais di taalibe ci kër gi ñëpp xam ko mu jiite DER moom itam teew na ànd ak son excellence fii ci sa wet tey monsieur Ousseynou Ly porte-parole présidence moom itam teew na bokk ci délégation président waaye gouverneur de la région de Diourbel ñoom itam teel nañu jiitu si ànd ak administration bi yëpp le préfet du département de Kébé de Mbacké moom itam teel naa ñëw ànd ak gouverneur ñu ñëw teew waaye monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de ndaam ñoom itam teew nañu ñëw ànd ak président tey jii waaye itam ñu ñu fi fekk te fépp fu président am yéene ci réew mii wala ci Touba ak li ko wër xam nañu ni tànkam diis na waaye danañ ko fa teewal bu ma ci tuddee Serigne Cheikh Thioro Mbacké honorable ak mbooleem membre de gouvernement bi fi nekk ak mboolem directeur yi fi nekk ak mbooleem parti Pastef ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir salle bi tey ànd ak président yaakaar naa nag képp ku laaj njiitu réew mi di wuyoo ci turu son excellence Serigne bassiru foo jëm mu ni la Daaru Minam koo fay fekk muy la ki fa nekkal Cheikh Mahamadoul Bachir loo fay sàkku mu ni wuy ji wooteeb Serigne Touba ca mbég ma waxoon ni ku muy sa mbég na nga ànd ak man sant yàlla yàlla na te neex na dégg lool yàlla nañ ci daje ngërëmul Serigne Touba Cheikhul Khadim kon nag Mbacke kàddu yooyu rek la ñu doon yëkkati ubbil ko président lim ñi mu àndal ñu yóbbaale mboolem ñi nu limut ndax réew mépp benn bopp la koo ji tee wala nga tudd ko tudd nga ñëpp kon ñu maase teewlu son excellence monsieur le président de la république mu jottali la kàddoom ziyaaram ak wuy si wooteeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ma waykat boo xoon ni bis boo jógee ni maa ngi ñëw bégal ko mu sol la baatin koo bëreel daaneel ko président à vous la